gannaaw ma leen sante ba pare dama leen jël sargal boobu jox ko le président Macky ndax yéen moom sax ngeen jiital moom ngeen doon njukkal ba pare di ma sargal waaye damay jël njukkal bi ak sargal bi yépp jox ko ndax nag moo ko yelloo lu tax moo leen wóolu yéen jigéen ñi lu tax moo gagné présidentielle parce que moo doon mooy président de la république moo demoon jongante ji ñu ñoom ñëpp ne mooy suñu choix dans le cadre du Benno Bokk Yaakaar nag ñëw ne dañ koy sotal yàlla def mu am ndam bi mu amee ndam yàlla def ci xarañam ak ci bëgg bi mu bëgg Thiès mu jël nag waa Thiès cëral leen cëral leen nag ba ñëpp xam na cëral na cëral na jigéen dafa dem na kay dafa ne jigéen ñi dama leen di dolli cëral naa leen waaye dama leen di cëralaat ba ñépp xam ne cëral naa leen loolu la def tànn nag seen sœur seen xarit seen soppe ngeen bëgg ko mu bëgg leen ngeen sopp ko mu sopp leen ñuy ànd di ànd ànd bu rafet mu suivre leen donc muy nag dafa am loo xam ne lu musul am Sénégal la su ma ko nommee ministre ministre bu jigéen moom am na amati waaye nag damay gën a cëral Thiès xamal leen am naa ci waa Thiès confiance xamal leen ne yaakaar naa Thiès xamal leen sama xel ak sama xalaat mi ngi Thiès te dinaa ci wax ci kanam ma jël nag porte-parole du gouvernement ne nag jigéen laa koy jox pour la première fois au Sénégal te maa ngi koy tànnee ci kon loolu rek doy na njukkal loolu rek doy na ngeen sargal li ci des nag yéen awma seen fay yàlla na ma leen yàlla fayal ndax ci période bii ngeen def euh, jataay bu rafetee nii ku ci nekk ak sa yéene ku ci nekk ak sa xër xër ba ñépp xam ne xër ngeen ko ku nekk nelawu sama ay collègues yi ñu fi ma ne nelawu leen guddi nelawu leen bëccëg maa ngi Dakar woon ci sama liggéey ku ne daal joxe bay nga sa waar xàmmeeku nga ci ku ci ne la nga ca def xam naa ko donc maa ngi leen di gërëm di leen sant xam ngeen tey jii bés góor am ngeen ngant ñi ñëw la presse fi ngeen taxaw naaj bi tàng na mais gisuma ci kenn ku xaaj gisuma ci kenn ku wone ne dama am yàkkamti les cheminots ku ne gis na xàmme nañ leen teg waaw Cees na ku fi woote ndaje cheminot bu ci toogul sa mbàjj du leer kon cheminot yi lu mooy li ngeen wax léegi te dinaa ci ñëwaat moom itam kon daal bés bi moom taaru na li ngeen def man mënu leen ko fay bàyyi naa leen ak yàlla waaye bàyyi naa leen ak le président Macky Sall moom boo ko lebalee guddi daf lay fay bëccëg kon xam ngeen ne dana leen fay li ci des moo ñu dem ci njukkal ko njukkal ko mooy lan mooy li ngeen njëkk def wan ka ne ko choix bi ngeen def ànd nañu bi choix bi ngeen def ñun kontaan nañu ci loolu ngeen wan loolu mooy jëkk waaye loolu dafa am loo xam ne boo ko ci xoolee mooy kii nga ñu jox ñun kat pare nañu pour ànd ak moom jëm ci fi nga bëgg loolu la liir naa ko moom it liir na ko kon tey du ma def gërëmaat leen la am na loo xam ne euh, ñu ñàkk gañaan wax nañ ko kenn amu fi gañaan sax ndax booy ànd ak nit soo ko bëggee da nga koy wax dëgg Maodo wax na ko parce Pascal wax na ko defe naa ni ah euh, Ablaye wax na ko ak ñeneen da ngeen ne man naa yaatal waa man ndax am naa beneen choix déedéet ku lii doyul dara du la kon man faaw ma yaatal ngeen ne bu ma déglu kenn musuma déglu te du tey lay déglu man ku ma tooñ maa ngi lay wax nga baal ku ma mësa wax baal naa la fas yéen a ànd ak yéen ànd ak sama frère yi ab ndaw délégation ñëw na gisuma kenn ci leen lu ñaaw pour man lépp rafet na ndax yàllaa ko rafetal ba pare kon ñun ak Pascal li nga wax it dégg naa ko noonu la ñuy àndee nit bañ wax ko dëgg waaye nag maa ngi leen di rassuré xamal leen ne déjà en tant que ñun dañuy juddu pour boot les charges la société jigéen yi ñoo ko ame kon tey fawuñu boot ma koy ànd nag sama mbokk jigéen yi ànd sama mbokk góor nag ñu boot waa Thiès naam day am kuy jiitu faw comme ni ko Maodo Maodo kon man en tout cas pare naa ci loolu parce que nag munu maa def leneen te bu ma defee leneen ñu laaj ma ko lii nga xam ne président indi na ko jox ñu ko sargalee ñu ko pour man jigéen ñëpp la ko sargal waaye nag dama koy jël ak humilité jël ko ak modestie jël ko ak sérénité remercier ko ci confiance boobu xamal ko ne ko lii honneur la waaye nag dama koy jël comme un défi un défi bu ma war a relever waaye nag te liggéey ba fële dafa am ñu ko moom ñu ma fay jàppale waaye sur le terrain politique yéen ñii la yéen ñii la défi boobu yéen lay ànd ak relever yéen jigéen ñi d'abord waaye nag ak góor ñi waaw dañ leen ci bor toujours ndax ñoom aussi dañ ci am wàll naam dañ naan eeru jigéen ñi la waaye il faut ñuy ànd ak ñoom ànd suñu frères yi ànd suñu nijaay yi ànd ak suñu papa yi ñu ñuy ñaanal di ñu jàppale parce que ku ci jël parole nee nga taxaw nga pour jàppale sa jigéen muy Ndeye Tické kon jàcce ngalaama yéen ñii ah euh, jërëjëf imaam yi wax naa ne gis naa seen taxawaay de kaamil yi yàlla na fi yàlla wàcc xéewal yi ngeen fi ñaan ñaan googu yàlla na tàbbi ci Thiès yëpp yal na dem ci Sénégal yëpp yal na dem ci président de la république damay far di wax ne ñun fu ñu toll dañu war di ñaanal Macky ndax nag Macky le président de tous les Sénégalais, comme aime à le dire euh, notre euh, oncle Mansour Mbaye dafa bëgg Sénégal dafa patriote dafa yéene Sénégal ba ba mu jógee rek bi mu bëggee tëxal Sénégal dafa wër Sénégal ba mu mat tabaxal ko lu nga xam ne que bi ñu koy déroulé sax xëy na nit ñi xamuñu ko waaye biñ koy yebbee ba wane ko ñu bari jaaxle nañu en sept ans li mu réalisé gisaguma ko président bu ko réalisé ci Sénégal dans toute l'Afrique d'ailleurs kon kooku la mu ñaanoon Sénégalais yi may nañ ko bu mu amaat euh, deuxième mandat deuxième mandat boobu dafa am li Amath Camara wax léegi sama frère wax waxam ju rafet jooju wax dafa am ay cinq initiative yu ko xalaatee dëxëñ ko ci PS2 PS2 lan nag loolu yëpp dama koy def metti ci fast track mais ci fast boobu département bi mu leen jox moom mooy bi mu ma jox dafa ci am rôle parce que moom mooy li transversal moom mooy permettre ñu temps yi ñu réduire ko moom mooy permettre di contribuer à hauteur de trente cinq mille emplois moom mooy permettre ñu am trois cent milliards de contribution du numérique ci PSE ci PIB moom mooy indiwaat cent mille emplois induits moom mooy contribuer ci l'émergence de ce pays kon ku jël département boobu jox ko sa doomu dëkk war nga ko ne ko jërëjëf kon président Macky Sall li ci des daal sant la gërëm la tàllal ay loxo la nangu ay loxo la nangu ne lii défi la nangu ne man doomu moomuma ko mag yéen a ko bokk nangu ne yàlla nañu ko yàlla defal ci jàmm ñun ñëpp Thiès nekk ci jàmm Sénégal nekk ci jàmm nangu ne liggéey la du kaf nangu ne yaakaar la kon yooyu yëpp yal na yàlla def benn du ci tas ah defe naa ne mën nañoo gàttal kàddu gi fii